acca jërë ngeen jëf ci taamu bi ngeen taamu seen site bi di wasaare ak Dakar Midi amaat nañu mbégte ak kontaan te jàkkaarloowaat ak yéen comme ça su nekk nu ñu koy defee xew-xew bu am dañuy daal di wàcc si terrain bi daal di ak askan bi waxtaan ak ñoom tey nag gis nañu li nga xam ne moo xew fële stade Ngalandou Diouf bu Rufisque mu mel ni estade bi yàggul bi ñu ko inauguré mu mel ni tamit yàggul bi ñu ko yàqee mu mel ni sénégalais yi fi mu nekk nii yàq-yàq bi métti na lool nañu boolu xol yi te xam ne ñun ñëpp benn lañ ku ñu fi xaañ ku nekk sa mag nga ku ñu fi rey ku nekk sa rakk nga ndax ñun ñëpp benn lañ koo fi gis kii rakk la kii mag la kii nijaay la wala kii tanta kon nañu boole suñu xol yëpp te arrêté violence bi comme ni ma koy waxee chaque jour nag ñun waa wasaare xew-xew bu am nag dañuy préféré wàcc si terrain bi ànd si ak waa Dakar Midi tàllal suñu micro askan bi mu wax seen xalaat abu bu baaxee rek ñu daal di dem ma gisee askan bi daa di leen laaj seen xalaat ñoom tamit si violence bi ñuy dem ci li nga xam ne moo xew ci stade Ngalandou Diouf bu Rufisque tey ñu gis ne foofu tamit violence bi am na ci li nga xamante ni di nawetaan yi naka nga jàngatee loolu. nawetaan moom loolu yàgg na si ñun ñoo ko bëgg nii rek di ko def mais lu ñu war a éliminer la si dëkk bi def suñuy ay championnat championnat sax léegi dañ dem ba maanaam li ñuy def nawetaan lañ fay def moo tax Sénégal moom da ngay ba doo xam sax lan la parce xale yi réew sama classe gi man mooy man man dama xamatul lan la nangootuñ liggéey fii la ñuy ne di gees di def seen yëfi dof bu lam amee ñuy profité wala leneen ak leneen imaginel da ngay dee ba tas daal man mënu ma comprendre daal billaay wallaay man mënu ma comprendre bi si ban Sénégal lañ ne imaginel nawetaan bu ko bu ko gars yi def maire yi wala genre euh, comment autorités yi bu ñu koy def tamit pour jàppale bégal jeunesse yi ndax si vacance lañ nekk yaa ngi dégg yow da ngay ne si vacances dañ lay jàppale pour comprendre nga nga ñëw bégal sa bégal sa kii fair play xam nga fair play lañ ko jàppee football tubaab yi xoolal nit ñi nit ñi rawee. imaginer seen football day am ba kii même bu xeex di am doo ko gis si kaw tribune bi nawetaan yi di ko indi soor yi ñooy bu ma xamante ni ñu kii def li ñuy def pare si. yaa ngi dégg te ñooñu gën a xam football gën ñoom bëgg football seen stade yi gën suñuy stade xoolal ñun fii. da ngay ñëw premier bal jour sax day waaje day jël bal war ko dugal nawetaan de. gars yi di ko sànni xeer. du yoon wala ñu koy saaga wala ñu wàcc ci biir terrain bi di xeex ay xeex man li ma fekkee si ay nawetaan ren ay xeex mënu ma la ko limal sama TikTok bii su ma duggee fo loolu rek laay xool barki bagaar si nawetaan kese ngay gis ay xeex yoo xam ne amul benn njëriñ nañ bëggante tàppe suñ xol yi ñaari koñ bu ñuy daje dër bi la ñun ñooy ànd man maa dama man fii laa dëkk golf laa dëkk mais golf day bu golf buy football dañuy dem ñun ñëpp dem mais dama dem ba léegi dama commencé découragé wu te du yoon nañ rafetal suñ xol yi ànd bokk ndey ak baay man daal loolu laa gis Sénégal jëm kanam ñoo moom suñ réew buñ ko xajamal may ñëw ci li nga xamante ni moo di nawetaan ñu gis li nga xam ne xew na ci stade Ngalandou Diouf bu Rufisque est-ce que tamit violence bi mu ngi wéy di desandi Sénégal ba léegi naka nga jàngatee loolu waaw wàllum nawetaan yi moom damaa yaakaar ne loolu moom fair play rek maanaam xam nga équipe ak équipe moom xam nga maanaam ndam li comme ni ma waxee rek ba léegi moom xam nga génnul Sénégal ndam li maanaam génn Sénégal te waa Sénégal xam nga dañoo war a maanaam xam nga nekk nit nite. maanaam nit nag yomb na ko waa mais nit moo jafe mhm. est-ce que comprendre a moo jafe ah xoolal keroog bàyyi stade bi rek stade bi xoolal keroog Macky defaral ñu stade bi xam nga stade lañ doon jooy xoolal keroog rek gars yi jël seize yi di xaañ xam nga xam nga daf yoo xamante ni nii bàyyi xam nga yow yaa ma gën a xam mais loolu baay bu ñu ko bëggaatee xam nga benn instant tamit xam nga dañ daal di jafe. waaw sëñ Fall nag nee na moom tepp tepp non ma gën yuret gaay baax yi nañ dal ànd ak jàmm waaw nañ dal waaw nañ dal rek. d'accord si nawetaan yooyu ba tey laay desande ñu gis li nga xam ne xeeb na si stade Ngalandou Diouf bu Rufisque ñu gis ne stade bi yàggul euh, buñ ko ubbee yàggul mais keroog gis nañ ne saax saaxee nañ ko ba stade bi yàqu. mooy li ma la wax rek lépp ñàkk irrigation la rek lañ gisoon fee si arena lañ gisaat sa leen Ngalandou Diouf waa lépp si xale xale yoon newoon fee mën naa la daanaka ñoo nekkaat fee rek. lépp Rufisque yëmbal la rek daanaka te lépp ñàkk éducation la xale yi ñoo war a yaraat seen bopp nit boo defarul waroo yàq te buñ defarul état bu defarul ñuy kaas bu defaree ñuy yàq loolu bu yàggee day ma nit dañuy defar ñëpp ànd di defar muy dem mii ñii di defar ñii di yàq Sénégal du dem état mën na defar mais population tamit war na mën a defar waaw. ci kaw violence boobu laay des ñu gis li nga xam ne xew na ci estade stade Ngalandou Diouf bu Rufisque muy stade bi nga xam ne stade bu bees la naa ko mën a tuddee biñ ko ubbee yàggul waaye gis nañu keroog ci nawetaan yi ñu saax saaxee ko naka nga gisee tamit violence bi nga xam ne am na si nawetaan mooy début ba lu ma la waxoon rek ne la yar moo amatul loolu la rek début ba loolu la parce que tey yow bu fekkee ni da ngaa yor sa doom yére moo koy jëndal boppam daa amagul 10 jëndal boppam daal bu ñëwee doo ko laaj fu mu jëlee lii jënd leen maanaam damay wax ne parents yi demi démissionné si seen xale yi dañoo démissionné te gune gi bu fekkee ne lépp moo koy defal boppam amoo droit na ko fii ngay jaar wala fee ngay jaar léegi nag xamoo daa agressé jëlaalalu jàmbur xamoo nu mu demee boobaa yar bi mooy luñ la wax ne yar bi day manqué rek lu neex xale yi ñu def ko. merci ñu gis li nga xam ne xew na ci stade Ngalandou Diouf bu Rufisque ñu gis ne stade bi ba ñu ko defaree yàggul mais bi ñu ko saax saaxee si biir nawetaan yi moo tamit mu mel ni violence bi tamit ñëwaat na si foofu. waaw loolu tamit am na fi loolu dèjà man li may jox day mel ni maam Sénégal fi nekk ni bëgg nañu sport mais daal xol yi dañoo xat quoi te sport moom dafa nekk loo xamante ni il faut ñu yaatal yaa ngi dégg soppante bëggante léegi pour que luñ bëgg ñi mën koo am mais suñ bëggee ne dañ foo dañ ree te mënuñoo ànd si loolu noonu tamit. dañu jëm ba sonn mais dara du baax dañu jëm ba sonn mais dara parce que démb stade bi fii gis nga ko gars nekk nañ fa euh, match toj ñu taal gaston bi def stade bi noo xamante ni daal doo comprendre affaire bu ñaaw soo ko gis ni image yi nii sax wax dëgg fa yàlla day nekk loo xamante ni doo ko rafetlu ñaaw na trop démb maa ngi koy xool a après la fin man mëntu ko sax xool xam na loo xam ne rafetlu mën nañ see mën a xoolaat bu baax a baax daal ñu xool ni ko organiser